rendre compte. d'accord Pa Moussa kilifa xam naa chocolat ko baal kilifa daa taxamtiku <laughs> kilifa <laughs> ndaje bi suba la incha allah ban solo nga ko jox. Uh-huh. ak it question yi nga xamante ne xëy na am na yu ci euh, euh, Ibrahima jukki sànq ci wàllu justice. Mm. Euh, xëy na du ñàkk dina ci am. mais yeneen ci ay poñ yan nga jàpp ni aussi di nga ko ci xaare moom président de la république mu ñëw ci. Mm. ak tasaru xibaar yi mu war a jàkkaarloo. jërëjëf euh, Pape Ousmane bàyyi ma balaa maa dugg ci sujet boobu ma boros tuuti ci euh, kaawu portrait wu nabu bi portrait wu ngóone bi <laughs> parce que ah, en fait euh, bi ma koy dégg muy wax le parcours du jeune vraiment j'étais non seulement agréablement surpris mais tamit gën a am xel bu dal parce que quand on parle de l'électrification rurale ñu wax un parcours comme ça Euh, wax dëgg yàlla daal na ñu encourager initiative yi bu demee noonu. parce que je sais pas pour son cas mais xam naa euh, yenn station yu bëri yoo xamante ne biñ leen fay tabb du Diomaye du Sonko ku leen xam auparavant. donc <coughs> loolu euh, li muy firndeel rek moom mooy en fait ci nomination yi ci orientation yeeg mise de position yi. Mhm. amul lenn loo xamante ne. connotation politique surtout politique politicienne qu'on n'a jamais cessé de dénoncer am na fi euh, teg ci it euh, promouvoir la jeunesse. la jeunesse très important. Euh, Jean-Michel Mini euh, comment elle s'appelle. Euh, Fatima Mbengue y euh, Fatima Mbengue de l'office des de la oui. nation. c'est-à-dire ñoo ñooñu ay jeunes lañ. Hmm. ba pare. Hmm. ñu jox leen ay responsabilité xam nga xam nga xam nga jeunesse si réew ñun malheureusement handicap lañ ko doon jàppee xale nga demal toog. duñ la jox yenn poste de responsabilité yi yenn yu mag yoo xam ne xale yi duñ ko sax jotee mais dañ ko war a jotee souvent li ñuy am ci expérience euh, mag ñi sax boo moytuwul euh, loolu la c'est-à-dire jeunesse mhm. atout la du handicap te ñun ci suñu bopp euh, Sénégal ñoo war di encourager genre initiative yi mhm. pour xam ne parce que ñoom dañuy ñëw avec l'envie de faire l'envie de prouver wan ki nga xamante ne moom moo leen sas responsabilité boobu ko juumoo bi ñu koy def donc da di gën a may euh, doole ñu dem donc di leen encourager bu baax a baax te tamit sénégalais yi euh, yàqamti bi ak parfois euh, bon benn benn benn truc benn benn benn sentiment politique warul justifier yenn saa da ngay gis ah nomination bu ministre wala bu nangam nga gis ñëpp di kii wëy bi ñuy xeex fële la woon et cetera d'accord je peux comprendre beaucoup de choses mais par contre ñu mën a comprendre que ni ñu teg kenn ci benn station. nga am noo waxee. yow dafa mel ni sax euh, surtout si si la nomination concerne une euh, un décret présidentiel dafay mel ni da nga sax ñi nga jiital. Mhm. alors que yow yaa leen jiital boo leen jiitalee da nga leen di euh, wóolu ak seen responsabilité je donne l'exemple de la police. ni mu amee ci politique bi la duo euh, Diomaye Sonko ñëpp kontaan ci noonu la amee la duyoo aussi euh, nduur Sall mm-hmm. mais da ngay dégg ay wax yoo xamante ne da nga naan sax ñi xëy na euh, fi ñu fi ñu war a teg les dirigeants wala li ñu foog les dirigeants doonuñu ko c'est suite à des enquêtes de moralité xool sa parcours xool sa jaar-jaar c'est suite à des entretiens dañuy toog ak ñoom waxtaan ak ñoom laaj leen ñuy tontu nga dem xam ci biir parcours ñooñu noonu kii nii fépp fu mu station bi mu toogoon lan la fa def yan résultat la fa amoon l' appréciation de de leur père dafa dafa dafa am solo. Mm. Euh, moo tax après bi ma déggee gaa yi yenn gars yi di dóor ci table bi naan moo doon def lii moo doon def lële moo doon mate fële waaye laaj ñu ne ba xam nga dañ ne alkaati du bàyyi dóore mais kii mooy alkaati bu dul dóore. Euh, donc euh, ci parcours ci vécu ci expérience ñu nañu nañu jox gëdd ñi nga xamante ni ñoom lañ jiital muy euh, le président Diomaye ak le premier ministre Ousmane Sonko bu ñu bëggee actes yi nag maintenant parce que dañuy ça c'est décourageant quoi parfois euh, c'est frustrant alors euh, pour revenir ci li Pa Ousmane wax léegi gis nga Ibrahima Sall bu président Diomaye taxawee di wax kañ la ñuy jàpp Macky Sall non yow kii wax la ndaje bi ndaje bi laa wax. ndaje bi kay ak Ibrahima Sall bokkul de. non bii. ah da nga bëgg a a dem sax ah ko sax. bu demee benn journaliste laaj ko sooru Macky yàlla baax sooru Macky Sall ah. mhm. muy wax lu ñu jàppee Macky Sall mm. il a raté sa vocation <laughs> non moom war Ibrahima président Diomaye yoonam newul ci loolu xeex bi xam nga lan la woon mhm. président seppi loxoom ci justice donc kon président buy taxaw di jox ay orientation kañ la jàpp kii ak nan la ñuy jàppee kee wala di dem di jàppale collectif buy wër ku ñu jàpp moom loolu tax koo jóg. loolu sa opinion la yow. non c'est l'opinion déedéet non sa opinion la déedéet déedéet c'est l'opinion de la constitution c'est l'opinion euh, maa ngi lay doon déglu nag yooyu c'est l'opinion constitutionnelle ce n'est pas mon opinion loolu c'est une exigence constitutionnelle la séparation des pouvoirs du man maa ko créé loolu mhm. président yoonam newul ci justice ba muy wax kan lañuy ñuy jàpp kañ la ñu koy jàppee loolu mënu cee tontu te waru cee tontu it bu ci tontoo dafa mel ne lañ doon xeex démb moo ni ba tey président Macky Sall la def lu ko war lu mu loolu justice moom moo koy lijjanti. mais par le président Diomaye en tant que président de la République chef de l'exécutif bu ko defee il aurait dina dina dina dina violer la constitution mais moom ci boppam dina violer euh, serment parce que serment moom mooy dafa waat ne dina respecter observer et de faire observer scrupuleusement les textes yi nekk ci réew mi mhm. et ci textes yooyu noonu moom moo instauré constitution la séparation des pouvoirs loolu benn mbir la ba ci loi d'amnistie munu cee wax non la loi d'amnistie c'est une loi oui moom la loolu c'est une loi mm. bokkul ak justice buy topp loi loi mën na ci wax. parce que ay poursuites yu ñu war a def ak yenn dossiers yi mu mu mu tudd ko. noo xam nga loi d'amnistie. Mhm. man je pour non pas l'abrogation. Mhm. mais la modification man waxuma wax abrogation de la loi d'amnistie. modification parce que bu ñu abrogé woon loi d'amnistie bi léegi léegi léegi léegi léegi. saa yi delluwaat Mali day delluwaat Mali de parce que loi d'amnistie bi dañ ko am amnistier di. je sais pas si il était poursuivi ou pas mais donc man jàpp naa ne amnistie bi euh, waroon la seulement ni ñu ko bindee moo moo moo moo moo ëpp crime de sang euh, torture yeeg yooyu warul bokk ci amnistie mhm. te kenn mënu koo amnistier sax déjà bakkan bu rot kenn mënu koo amnistier donc loolu président Diomaye wax ci yàppat souci li may bañ kay mooy mhm. euh, wax ñu kañ lay jàpp di wax loolu moom vraiment kenn du ko gis xam nga je pense que première fois muy def interview. donc sur la bi mu faloog léegi donc sur la forme rek nañ nangu euh, une première rupture c'est-à-dire qu'il n'est pas allé à France 24 ou à TV5 mm-hmm. avec la presse sénégalaise acteurs u euh, presse sénégalaise et des journalistes yoo xam ne jàpp naa ne vous êtes dedans ah. Ouais. voilà dinañ ko laaj la nga xamante ne moom mooy yittee askan wi li nga xamante ne moo entrer dans ses prérogatives aussi dina ko def notamment ci euh, le vécu quotidien des Sénégalais il y a beaucoup de choses qui ont été euh, di ci euh, wàññi beeg nangam ak nangam dina ci mën a am lu mu andi. comme euh, solution mais surtout li gën a am solo moom mooy dégager des perspectives ci li nga xamante ne foofu la jëm notamment l'orientation de sa politique les gens parlent de euh, déclaration de politique générale bu amagul am déet mais prémisse la parce que c'est le président qui définit la politique de la nation mm-hmm. ce n'est pas le premier ministre euh, am vision mais nekk un intellectuel boo xamante ne avec finesse d'esprit jàpp naa ne lépp lu nu ko laaj ci li entrer dans dina ci apporter euh, réponse yi nga xamante ne moom mooy euh, yu war donc l'orientation du débat ce n'est pas lui ce sont les journalistes oui. qui posent des questions qui donnent des donc bokkul ak déclaration ñu ne maa ngi xaar mu wax lii maa ngi xaar mu wax la li nga xamante ne fi mu toll ni kay la euh, la ñuy xaar lu mu wax il faut que le demande à Souleymane Niakh ou à Ndeeram mm-hmm. ñoom ñooy mën a débat ñoom ñooy joxe seen i orientation ñoom ñooy joxe seen i relance Euh, bu ñu d'accordul d'accordul mais quand mu doon rek ni euh, de manière professionnelle du ma jàngal seen liggéey. mais xaar nag ci yenn ci dossiers yi mu am clarification mënul clarifier dossier il peut pas pas Ousmane bu bu clarifier dossier wala mu mais attends parce que te tamit oui justice bi waaw lan moo tax ñu defoon assise de la justice alors si on doit déclencher la machine aujourd'hui ça du am sens maanaam nga def assise justice xam ne justice bii am na problème ñu taxaw saytu ko càmbar ko ne lii moom mooy solution yi yow àndeegoo solution yi bëgg a doxalaat justice bi maanaam bërëb bi baaxul tali bi baaxul balaa nga cee dawal kay xanaa da ngay defar tali bi ba pare woy laa kon li nga doon defar amul sens donc réforme yi bu ñu nee dossier rek du la aja ci wàllu justice rek ah. oui euh, non euh, parce que loolu bokk na ci li nga xamante ne xëy na moom la gars yi di gën a gën a gën a gën a xaar mm-hmm. mais au delà de ça na li nga xamante ne moom ay euh, kii yoon la mais yéen la après cent après cent jours euh, donte polémique bi bëri nañu euh, ñii ngi naan euh, lim liñ doon xaar gisuñu ko ci ñoom gis nañ ay sorties yu bari yi nga xamante ni semaine bi ñu génn la tey ñenn ñi bokk ci ñoom ne ñu ngi ci jéego li ñu gis dalagum na seen xel waaye après cent jours ci loo xam ni xaati muñ ko ci ay kayit wala dara ndax jar naa def un bilan. non mënul nekk du question jar na ko am jaru ko dafa mënta nekk en cent jours personne ne peut dresser un bilan. ce n'est mën nga nag ne sama njort lii la ma jox mais taxaw euh, cent jours nga ne baax na wala baaxul bilan bi lii la non léegi nag maintenant cette perception la mhm. est-ce que c'est une perception positive wala dara da ngay xool rek la plupart euh, j'ai entendu euh, l'opposant Thierno Bocoum dire que amul lu muy critiquer Diomaye mhm. mais par contre am na lu muy critiquer Sonko vous voyez tout en sachant que Sonko mooy Diomaye Euh, c'est presque insensé. ah. amul sens quoi. jërëjëf quoi. <laughs> xam nga. merci donc c'est-à-dire xam nga gars xam nga gars yi di Sénégal yi <laughs> du lool de. gis nga les politiciens sénégalais. Mhm. yi dee soo leen dekkilaatoon ñu bokk ñuy dund. Mhm. ak beneen génération politique bi ñëw. duñ mës a bëgg Ousmane Sonko. bon xam nga xam nga xam nga xam nga. donc boo bañee rek bañ na. waa kese donc loolu noonu euh, ci c'est c'est ci côté c'est émotionnel quoi bëgg naa ko bëgguma ko. Mm-hmm. mais lu rationnel nga teg ko sur la table avec des arguments non jafe na nga ne kii da ngay euh, remettre en question. Mm-hmm. Euh, son patriotisme. son engagement et sa détermination pour que le Sénégal jàpp loolu moom jafe na nga andi ko avec des léegi nag bu la neexee nga ne way ni muy doxee neexu ma. Mhm. ku nekk am na ci droit damay opposé wu. effectivement il faut que l'on veille à ce que Sénégal am une forte opposition. Mhm. parce que loolu moom mooy njëriñam. Mhm. kuy taxaw ne fii nga jaar du nii nii la. mais loolu nag pour mu am efficacité ba nga soxla il faut que ça soit une opposition responsable fondée sur des arguments. pas sur bëgg naa la bëgguma donc kon président Diomaye bokk na ci première euh, déclaration am mhm. l'opposition va s'opposer parce que moom dafa dund dix ans d'opposition yu tar mhm. sénégal yi jóg taxaw pour mettre fin à ça mënul compromettre liberté wu kenn mënul compromettre la volonté de s'opposer de qui que ce soit mais seulement pour que qu'une opposition mën a productif Euh, productive mën a dimbali Sénégal mën a contribuer ci doxinu Sénégal il faut que mu nekk une opposition responsable républicain mais mu am ay fonde sur des arguments yoo xamante ne wax dëgg yàlla boo ko boo ko boo ko bu ko bu ko gouvernement yi bàyyee xel. dina kii mais euh, opposition boo xam ne day taxaw naan la wéy na dem wuy ji assemblée nationale. tout en sachant que ni yow. maanaam yow opposant xam nga da war a am statut ah. euh, la constitution la di Euh, chef de l' opposition dafa war a am. Mhm. lan moo tax Sénégal amul chef de l' opposition. te pourtant constitution moo ko wax. lu tax doo dégg ñoom ñuy taxaw naan ko constitution nee na nga dem def déclaration de politique générale ñooñu lan moo tax waxul constitution nee dafa war a am statut de l' opposition. Mhm. constitution moo ko wax. on tous d' léegi lu tax mënut am. parce que amul décret d' maanaam kan mooy chef de l' est que c' est l' comme que xamoo modalité yi lu ko constitution mënti wax mënoo koo appliquer ndax xamoo modalité c'est exactement la même chose avec la déclaration de politique générale. d'accord constitution moo ko wax mais xamoo modalité yi. noo ko mën a exécuter. d'accord donc euh, nañu nañu kii rek alors kilifa yow it say attente ci exercice su suba bi. ñoom man tey dañuy suba bi nag ku waroon lu lu lu lu waroon teewee la yow. man dama fay teew dama fay teew. dina am yow dama fay teew. mais <laughs> entretien la avec la presse. entretien avec la presse.